min alcheikh mohammadin il muntaxa mbake alxalifati al aam liltariqati almuridiya intilaqan min almabda alislami alsaami allati yujibu ala almuslimi cibadat allahi taala bimtithaali awaamirihi wa ijtinaabi nawaahihi wa huwa alamru allati min ajlihi assasa seyxu alxadim radiallahu taala anhu madinatahu almahruusa wa daa kaafata ruwaadiha ila al-iltizaami bi haazal mabda'i allazii yumathilu taaliima al-islaami as-samha wa imtidaadan limaa qaama bihi ash-sheikh Abdul Ahad Mbacké ibnu Cheikh al-Khadim radiyallaahu ta'aalaa anhumaa li sawni hurmati madiinati Tuubaa wa nuzuumi al-mutabaxi fiihaa min ittixaasi qaraarin saarimin li rad'i kulli qawlin aw fi'lin yunaafi al-qiyam al-islaamiyya wa yataaradu maa taalimi al abdi al xadim radiallahu anhu fa inna al xalifata xafidahu llahu wa raah yamuru al muridin naasixan li kulli man yaqbalu minhu nusa an yataqayadu bil islam wa yuxaafidu ala arkaanihi wa xaasatan alsalaata allati hiya ahamuha bi iqaamatiha fi awqaatiha wa mawaadiciha maa shurutiha wa aadaabiha mata adrak mata adrakathum ala dawi ma qaalahu alabdu alxadim radiallahu anhu man chaxalathu salaatu an il ashyaai intafaa biha wa bil ashyaa wa ala al asaasi nafsihi fa in alxalifata xafidahu llah yamnacu manan baatan fi madinati tuba wa tawaabiciha taati cheyin min saairi almashrubat alkoxoliya walmuxadaraat aw baycihi mumaarasat alximaari bi jamihi anwaahihi atadxiina aw baya ayi nawin min anwaaci duxaan isticmaal alaati lahwi wa tarabi min almuusiqa wa tubul wa saair almazahir alfolkloriya ka raqsi wa gayrihi kulla laacibin يؤدي إلى ممنوع كالمسارعة وكرة القدم وخيرهما فعل المنهيات كوصل السعر وتغيير البشرة aw bay'i adawaatiha irtidaa athiyaabi gayri almuxtasima wa maarasat sixri wa jamii anwaai zawatha iwa ahli alfisqi walfujur altasarufa qawlan aw ficlan bismi tariqati almuridiya min gayri isnin maadama aliltizaami bitaalimi alislamiya wa wifqa almanhaji alxadimi fatxa muassasatin taalimiya aw masjidin duuna muwaafaqatin wa tarxiis min allajnati almukallafi bi zalika haasa wa yataxattamu ala kaafati almuassasat altaalimiya fi madinati tuuba altaqayudu bilmuqarari altaalimiyi alladi yatimu icdaaduhu fi itaari mujamaci cheikh ahmad alxadim litarbiyati alislamiya wa satutaxasu ijraatun saarima didda kulli almuxaalifin li hadihi taalimat min min tarafi lajna almuraqiba walmukallafati bi zalika bitaawuni maa sulutaati alrasmiya haaza wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman kathiran sadarat fi madinati tuuba almahrusa baada mushawarati ali cheikh alxadim radiallahu anhu wa muwafaqatihim bi taarixi ishrina min shawal sanata arbaina wa arbai mia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 lii mu dégg doy na sakk de doy naa dégg it na ñëpp tàllal saba nañu toog nañu toog nañu toog bu kenn jóge fa nga ne bu kenn jóge fanga nga ne nañu toog nañu toog jërëjëfati Mbakke jërëjëfati Mbakke jërëjëfati Mbakke jërëjëf si Mbakke nañu tàllal toog leen toog leen toog leen sëriñ bi ñaanagul toog leen